abonné leen ci saa su ne ay xibaar te wóor aju ci réew mi ak ci ñaari doomu xaadama lañu tiira balu fetal tëf ñu faatu ñàkk seen bakkan ca diiwaanu Kédougou allah libération moo ñu ko xamal dëkk ba ñuy wax xosanto askan wa fañ doon ñaxtu rawatina ndaw ña ñaawlu dogal boo xam ne préfet ba fa koo jël ngir jëm ci ñi nga xam ne fañ leen a war a jën ñuy liggéey loola nag fañ koo ñaawlu ne fañ leen a xañ seen àq ak seen yelleef léegi bi ñu ñaxtu nag ci lañ jàppante xam ñaar ñu ca faatu wal fajir yéene kaay dëggal ko na ñaari doomu aadama fañ leen a faat juróom benn am ci ñoom ay gaañu-gaañu ca Kédougou vox populi ne musiba mbàbba kumba moo fa lépp jëm ca nañ war a jëlee ña nga xamante ne ñoo yor wàllu liggéey ba gannaaw ña faatu am na fukk ñoo xam ne fa ñoo xam ay gaañu-gaañu 24 heures yéene kaay na ko bu ko wàññi ñaari nit ñoom lañ fa rey fukk ak ñeent am ca ay gaañu-gaañu yu garaaw yéene kaay bi na rey gi fa hëpp ca diwaanu Kédougou te fa ñaaw vox populi pere préfet ba nag dogal boobu mu jëloon arrêté ba fi mu toll neenal nañ ko maanaam fañ ko annulé lépp ngir jàmm del siwaat ca diiwaan ba <laughs> leer nen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na njiit réew Macky Sall dalal na Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xam na femeer ba futtu ci li ñu tànn Amadou Ba candidat benn bokk yaakaar ah, yow seetal ngir neexal ko nag njiit réew Macky Sall fa ko wax na ko Abdoulaye Daouda Diallo faa bëgg nga ñëw yow laay fal premier ministre ci gouvernement bi di ñëw bés bi yéen ko xamal waaye daal fa mel ni daal poste premier ministre boobu yëngatut Abdoulaye Daouda Diallo solo regard yéen a kaay na ko maam booy moom tey lay wax lu leer fay xaw yoonu boppam wala boog lan lay def li ñu bëri njort nag mooy lan waxoon lay def fay nekk candidat boppam source ay yéen a kaay na ko kaneen ku nar nekk candidat mooy Birima Mangara moo fi nekkoon ministre budget ci jamono nekkoon tamit jegeñaale Abdoulaye Daouda Diallo nee na fay samp ndëndam laaj réew mi comme ñëpp waaye parewut a topp ci gannaaw Amadou Ba Pape Thiam inspecteur impôt et domaine ne Amadou Ba man a kaay Ousmane Noël ba tey ca yéen a kaay ba ne Amadou Ba ay ay bagaas yu tax mu am ndam ci li ñu ko dénk ci l'évidence yéen kaay fa yokk moom Ousmane Noël Dieng attaqué Abdoulaye Daouda Diallo nee na bu ñu foxantoo moom ak Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao buñ ñu yàpp ñun moom ñu ngi ci gannaaw Amadou Ba alerte yéen kaay ne fi mu nii nag bëri na ñoo xam ne ñu ngi bàyyi benn bokk yaakaar ndax d'accorduñ ci Amadou Ba bi ñu tànn l'évidence yéen kaay na ko faala ci yokkal fi mu nii ñi nga xam ne fa ñoo mer te d'accorduñ Amadou Ba kay jafe-jafe bi dëgg mooy lu boole fi mu toll ni waa bennoo yi fale na tasaare de l'observateur fa koo dëggal ne Amadou Ba kay fa xam luy ñuul ci soow mi ah, yaaw fa ngay xool bi ko Macky tànnee fa bari ay dégâts yu mu def ci APR fi mu toll ni APR fa ñoo tasaaroo ña ngay rayante crise jafe-jafe dëgg lañ am ci seen biir assemblée nationale sax majorité ba fa tasaaroo fi mu toll ni mbootaayu meeru Sénégal yi tamit fa jaxasoo ñii fa ñoo ànd Ba ña ca des ànduñ ak Ba fi mu toll ni carte de direct news ne Aly Ngouille Ndiaye xam ne moom fa wax ne tekki na ndombol tànkam bennoo fas yéene xaw yoonu boppam moom i tamit maire ya nga xam ne ñoo nekk ca département bu Linguère ya gën a bëri fañ ko wan ginnaaw fukk ak juróom-ñeent fukki ak juróom benn yëpp ne ko aali ñun ànduñu ak wan nañ la ginnaaw ndax d'accorduñ ci dogal bu nga jël léeg si ko kaay ne dogal bi mu jël nag moom Amadou Ba mooy fa jël téléphone oo Abdoulaye Daouda Diallo oo Boun Abdallah Dionne waxtaan ñoom ngir bëgg a toog ak ñoom dajee gisante lépp bi fi mu toll nii moom lay gi la si ko yéene kaay nee na yëfee sotteegudde a a signé ab charte balaa semaine bay jeex jox ko waa bennoo yi wala fajir yéen a kaay mel ni ku daan Amadou Ba kay faam soxla dëgg gis nga APR gële ña fa nekk ñu bëri sa ñoom waxuñ ci Amadou Ba dara fañ ko nar a andil jafe-jafe de <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca naññi ja moo ñu nar a nekk candidat 2024 bii ñu bëri kenn xamut leen maanaam carte gi leer agut wala boog fa ñoo nar a am candidat yoo xam ne askan wi fa la ñu desee xam enquête yéen a kaay moo xam amal jàngat info yéen toll nii nag man faa seetlu ne gars yi tàmbali nañ pré campagne dagaan baatu askan wi xam nañ fi mu toll nii caaxaan leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na Amadou Ba jamono jii tolluwaayu APR ak réew mi li ci xew ak yu bëri arrangé wut Amadou Ba de baaxul ci moom yaaw seetal jafe-jafe ci wàllu dund gi ndaw ñi Sénégal seen yaakaar tas ba ñii ñu ngi dugg ci gaal yi ba pare xeex ba nekk ca APR biir responsable yi loolu yëpp soo ko dajalee baaxul ci Amadou Ba li baax nag ci Amadou Ba dëgg-dëgg mooy mooy candidat boo xam ne njiit réew mi tànn na ko lu jëm nag ci wàllu parcours am jaar-jaaram loolu gars yi duñ ci débat de maanaam mën nga ko taqal lu ne waaye jaar-jaar moom rafet la na ko le quotidien yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom yor yor yéen a kaay mooy RTS Télé Sénégal li ñu def keroog Sénégal yu bëri fañ koo ñaawlu waaw fa ngay xool télé boo xam ne Sénégal yépp ko bokk RTS naka lay mën a demee di def en direct bés boo xam ne waa Benno Bokk Yaakaar ñoo dajale ca palais ba ngir tànn seen candidat loolu du yoon ba tax yéene kaay bi ne loolu nag fa jur coow ci réew mi Ibrahima Lissa Faye journaliste la nee lii kay yëfu maa dëgg la Abbas Sow moom journaliste la ca RTS la nekk terewul nee na wax dëgg yàlla lii moom ak parparloo la ndax RTS du ko defal mukk a a <laughs> liggéeykatu maire yi seen geraw bu bëri bi ñu nekkee fa nar a andi gàllankoor ci askan wi si du quotidien fa xëy amal ci jàngat tàggat yaram jongante xaritoo Sénégal ak Algérie tey ci talaata ji bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee ci stade Ablaye Wade stade yéen a ñu ko xamal record yéen a na ko ñaari champion Afrique ñooy dajee léeg ko yéen a na hée match bii nag du amical rek de baax na li baaxul nag ci activiste bi ñu wax kaay foof nekk France mooy ne fañ fa moom Doudou Ka ba mu demee France ca buntu ab hôtel bu cher boo xam ne ay millions yu bëri ngay fay fa lañ ko fekkoon daal di koy ñaawlu laneen lu ñaaw mooy xale bu jigéen bi ñu faatoon ca kër Mbaye Fall xale bu góor ba ko rey nag fa mujj daw la solo yéen a ñu ko xamal keneen ku rayoon nit ba pare daw waaye jàpp nañ ko mooy xale bu góor bi nga xam moo rayoon kankuran ba l'observateur moo ñu ko xamal ba tey l'observateur fa ñoo xamal mbir mu garaaw te yéeme ma nga amee ca dëkk ba ñuy wax Toubacouta yaaw seetal yàlla ja fa faa taw ndox mu bëri ba jégg dayoo léegi ya xam yenn niw yoo xam ne fa ñu mujj sulleeku ca bàmmeel ya te jasit ya ña ngay doxantu ca wetu armeel ya aay ba tax yéen kaay bi mel ni ku naan lii buñ ci gaawut jël pexe catastrophe lu garaaw musiba naaru laay la mën a jur armeel yoo xam ne fa ñoo indoon ndox ma fa fees dell ba woy dawlu ya fa tëdd mujj di génn ca seen biiri bàmmeel xam nga ne loolu fa doy waar leen ci suñu chaîne youtube saa su ne ay xibaar yu wér te wóor ak ci réew